nataal ñaar lii téere la li ngeen ciy gis day wone ay wax téere bi mu ngi tudd biibal ci biibal bi la yàlla waxe ak nit ñépp li yàlla wax mooy dëgg yàlla du fen yàlla aji sax la mu ngi nekk te mooy nekkit ba faw yàlla biy dund di gis lépp xam lépp di dégg lépp yàlla niroowul ak xërëmu bant yi walla xeer yi yàlla niruwul ak xërëm yi amul dund yi te duñu gis dara duñu dégg dara te duñu wax dara yàlla dafa sell te dafa xaajaloo ak lu bon ak bàkkaar yàlla mbëggeel la dafa bëgg ñépp jigéen ñépp ak xale yépp samay xarit déglu leen bu baax léegi ma nettali leen lu biibal bi di wax